jëlilaay di yëkkati kàddu yooyu ci kilifay yi Tuubaa kanam yi ñu àndal kuréel la goo xam ni dafa fas yéene mbooleem loo xam ni ab dëkk dana ko ittewoo mu dugal ca loxoom waaye defe ko nan ànd ko ak mbooleem ku yaakaar sëriñ Tuubaa te man ko loolu moo tax mu juddu woo tàllal loxo murit yépp te mooy fas yéene dajale ci murit yi ñaari millions yi murit ñaari millions murit yoo xam ne kenn ku nekk yaay jaayanteel sa bopp ak sëriñ Touba ni fii nga toll ba ba ngay wàccub liggéey weer wu nekk danga jox sëriñ Touba ñaari téeméeri dërëm te boole ko jaaree ko ci Touba ca kanam. soo matalee sa jaayante boobu at mi day doon douze mille buñ ci amee ñaari millions yu murit weer wu nekk dañuy am ñaari milliards at mu nekk ñu am vingt quatre milliards maanaam ñaar fukki milliards ak ñeent waaye li am solo ci liggéey boobu mooy li Touba ca kanam def seen mille francs yooyu ngeen di joxe par weer moo ko def ak li muy am am solo lépp kon kuréel gi mi ngi soññi fu nit nekk nga bàyyiwaat xel tubaa ca kanam ñu xam ni tubaa ca kanam kër du dara lu dul njàngaleem sëriñ tubaa dong ndax sëriñ bi 1926 moo digle woon mag ñi ni kenn ku nekk na ko jox ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett mag ñi di ko jox di fanaan ci pëncum njaareem di ko jox ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ba mu ne doy na ci diir bu gàtt la ko mag ñi daje leel juróomi million ci xaalisu ngurdu ca jamono booba buñ ko doon xayma tey ay milliards lay doon waaye sëriñ bi teg ca jàngale mu am solo wax ni lenn ci mag ñi ni leen dama leen a bëgg a jàngal aw yoon dama bëgg lépp lu ngeen soxlaati ci yoon wi ngeen def nii mooy ngeen boole seen doole dajale seen i dërëm ak seeni i ñaar dërëm defal ko seen bopp te bañ koo sukkandiku ci kenn mu teg ca moom Cheikh Ahmadou Bamba ni leen li tax nag ma leen di sant loolu mooy damay bañ bu ëllëgee ku leen manal ndax ku leen manal sañal leen te ku leen di sañal yàlla na fekk mu doon ku leen waroon a sañal kon njàngale moomu moom rek las Touba ci kanam bee salaat ndax Cheikh Mamadou Moustapha radiyallahu anhu bi mu noppee gis Serigne Touba ci njàngaleem Serigne Touba moomu la sukkandiku àndandoo ak yoonu murit wépp ba gase abraay njaareem indi ko Touba. toji kareel ca ndokku tabax jumaa ji ba mu àgg fi mu àgg tey mbooleem xulafaa yi ñëw gén yi ñëw euh, ginnaawam ba ci Seex mu Mbàkke yàlla nañu ko yàlla fayal mi génne bu yàggul fukki milliards ak ñaar wax ni dafa bëgg ñu defal ko ci Touba ñoo ñëpp ci njàng lem Serigne Touba rek moom yi lañu sukkandiku ba indi yoon wi fi ñu ko indi. ñëw nañu fi ay yoon ngir daje Touba ca kanam. waaye nag ñu ngi fiy soog am ndaje mu mel ndax bii moo dëppoog ndigal bii moo dëppoog kilifa gi nga xam ne moom la suñu tuwaatee fi mu nekkal ko fi mu woote ndaje mi ngir ñëpp ñëw ndax mbir mu nekk nag daa laaj organisation bi laajee Touba Ca Kanam fu waay nekk te dégg ko am yéen ak pas-pas da ngay dikk la jëm saa bokk nekk sa ba keroog ba kilifa di la fekk kon nag maa ngi sant ñi nga xam ne bi ñu déggee liggéey bi dikkoo nan sa bureau ba jënd ay carte membre dikk fii di ko doxal ci seen pëseef ak seen bëgg lu baax ak seen coobere waaye amaana si ak sant ndax seen kilifa da leen see fekk si jox leen si ndigal mooy kilifa gi nekk fii su ko defee nag kon foofa la la ngeen see dégg man kon jot na ñu nos ko ñu organise ko ndax at mii ñu nekk nag dañoo bëgg nos liggéey bi fexe ba quartier bu nekk ña fa dëkk ñu samp biro bu yaat bureau bu dëgër boo xam ne kilifa gi moo moo see joxe ndigal ña fa ña déggoon liggéey bi ca bu njëkk dem dagg seen carte membre ngir seen pëste seen pas ba yokk ku nekk beer yu doxal dunoo bëgg ñooñ ñu booloo ak ñi fi kilifa ki teg ñu àndandoo samp biro boo xam ne day dëgër lépp lu aju saamuk suñu baaru xurujo ñu yëkkateendoo di tegandoo si Touba ca kanam su ko defee nag bu ñu xasee ba samp bureau bi ba wut ku koy coordonné muy góor jigéen ñu si nekk di ko doxal ñu xam ñi am ay carte membre dëkk saam ñu ubbi leen benn compte sa bureau ba tudde ko compte saamuk suñu baaru xurujo su ko defee nag am genn koo xam ne mooy dem di jël carnet yi si si turu waa saam ngépp andi teg ko fii ku dikk te dëkk saam am lu mat ñeen fukki nit ak juróom ak juróom-ñeent ak yow muy junn fukk mu yëkkati ab carte jox la tasaare ko weer wu dee la nga sa dajale ngeen lajaloo jaloo si bundu kër sëñ bi wa ilaa fu leen soob ku nekk indi sa carte ne ku nekk wane la nga jaay ñu dajale ko ngeen xëy dem wersi ko loolu mooy tax bu at mi jeexee ñu mën ne waa waa saamkat si at mi dugg na nangam si Touba ca kanam waaye nag bu fekkee man dama dëkk saam yor sama carte ne bero fee di maag sama nit kee bero fee kee bero dana bari luy jógee saam di dugg si waaye nag mun noo seesu ko kon loolu mooy solos jotaay bi nos gi nag yéen a koy defal seen bopp li Touba ca kanam man mooy jox leen diggal leen organiser leen nos leen ngir demal seen bopp kon loolu incha allah rabbi suñ suñ suñ delloo yéenay xool loolu ngeen nos ko nag jaar si yoon wi bari na bari na koo xam ne tey man man na maa ngi dëkk gaar bu mag ma am fii sama wóolare ma yëkkati ab kaar ne ko dee ko jaayal su ko jaayee weesu ko ko loolu bu neppee si turu suñu baara mbàkkal ngay comptabilité rek du nga comptabilité si turu waa Sàmm ñi ngir ñu si kon ngir ngir daa waroon nosu kon buñ fi lu mel noonu ngeen Euh, gën see góorgóorlaat baax baax te gën kaa bàyyi war xel di soññoor baax ndaw ñi association yi ak daayira yi ndax it bëgg naa euh, suñ saam ci organisation bi ngeen dugal si baax association yi surtout ndaw ñi ngir ne liggéey bi dafa laaj yitte ak jot te ñoom it takku nan te dana leen mën a jàppale si liggéey bi si dugg si ñu def ay mastucation comme bu bu buñ demee ñoom jotaay yu ñuy def ñuy dugg si biir kër yi di waxtaan ak nit ñi fexe ba kër gu nekk li mu juróomi nit saxoo nekk ñu si ñaar téeméer kon loolu fi mu ko doon def am si lu toll ak ñaar téeméeri kër la kër gu nekk juróomi nit dafa dagg ñaar téeméer chaque weer jàpp naa ne su weeru deewee dina mu dugg si compte kon loolu ab xalaat la boo xam ne ni ngeen si dox te góorgóorlu si baax a baax. waxtu wu nekk nit ki day fexe ba di dencal li koy jariñ ëllëg te mooy liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba kenn ku ne bu ko manoon ci xolam dana fexe ba lu ne mu defal ko Serigne bi ci dëkk bi ku ko mënul na te am mbooloo daje wax dëgg yàlla buñ fexe ba gone yi góor yi wàññi connexion bi jëmee ko ci. ndax waxta waxtu wu nekk promotion bi ngay dugg weer da ngay dugg promotion bi gën a réussir gën a riis te mooy promotion Serigne Touba ndax Serigne Touba moom loo ko defal li tax mu neex mooy doo ko defal benn mu lay fay benn boo ko dee defal dafa waxoon ku ne wax sëñ Mor Dieng sëñ Mor Dieng moo daajoon ras bi sëñ bi duggee woon bi ñuy defar teg xeeru jumaay njëriñ daana daa jël sëñ bi ay gaal dafa am bi sëñ bi woolu ko mu ñëw mu ne ko foo demoon mu ne ko góornóor bi damaa woowoon di ma lëggéeyloo sëñ bi ne ko baa fay na la mu ne ko aw ah, man de fay na ma ku ma lëggéeyloo ku dul yow dana ma fay mu ne ko baa bu sibiree dana la fay mu ne ko déet man kay li ma ko lëggéeyee rek la may fay mu ne ko ginnaaw sibir nag mu ne ko li ma ko jëfal tey daal lay fay waaye li ma ko jëfalut nag du ma ko fay mu ne ko cam kooku nag daa mëtt a lëggéeyal moor ki mëtt a lëggéeyal ngay dund mu di la fay nga dee mu di nga dekki mu di la fay te loolu ahmadu mii rek lañ ko yaakaar kon ginnaaw sëñ Tuubaa lañ yaakaare loolu te war góor góorgóorlu ci defal ko ay waa ji dëkk bi dëkk man de gisuma lu ñu bu dee géej gi sëñ bee ko engagé bu dee xasida yi sëñ bee ko engagé bu dee luy teenu dem sawara sëñ bee ko engagé lu nuy may jàmm sëñ bee ko engagé xanaa kay euh, faxasal fi ngay toog mën a jekki yomb na mooy lii nunu nu laaj mooy Touba ca kanam ji ay lamp moom sëñ bi dunu ko wutal noo ko war a defal suñ bopp noo ko war a tëlin lii sëñ Baara wax léegi it ñaata yoon ngay dégg ñu tudd li mu ay milliards da investir nañ ko Touba te mbedd moo jaar doo ko fa gis dégg nga ci yam ah baa noonu sunu wet gii di samedi xaj na dañ koo boolewut ci programme bu Touba kon moo tax dañ dul gis yooyu ku ne fa nga dëkk na nga mën a xam waaye yi ma dégg ñu koy lim moom nun nun gisuñu ko dégg nga ci yeneen béréb yi léegi-léegi ñu napp ñu ne cinq milliards wala sept milliards dix milliards waaye nun lii Touba ca kanam di def daal lañ xam ndax yoroon li bët léegi-léegi ñu gis mbedd mu lëndam ko mu leer mbaar yaa ngi nii bu yeggul bi màggal gi jub si oto mosu mën a jaar kenn ku ne saw gan ñëw na te loolu tubaab ca kanam ñoo ñoo ñoo ñoo ca jàpp ak ña fa ne xàll ko defar ko ak yeneen i béréb yu mel noonu kon yàlla na yàlla fay leen ci taxawaay bii noonu waa saam nag buñ ci des ginnaaw ndax borom saam mooy magi mag te saam moo fi jëkk te sëñ Touba moo ne woon borom saam fii béréb la muy saam ku fi liggéeyal Serigne Touba war nga ko fee liggéeyale nun nag nun waa saam defe naa Touba bu ñu doon seet quartier yi ci yëpp saam lay doon bokk na ci quartier yi fi gën a rëy ci saam waaye fii ngeen ne nag mooy saam kon nun ci suñ bopp dégg nañ ni ngeen ko nose xaj na loolu kilifa yi buñ ci waxee danañ danañ ca wax lanu cay gën a may doole it mooy nii ko sëñ Baara waxee nu fexe ba luy jóge saam di lenn rek nu àndandoo du benn di yëkkateendoo di dóorandoo di dalandoo kenn ku ne la ngay jëf nga di ko jëf ngir jëmmi yàlla rek ndax sëñ Tuubaa na boo boo leen di xëccoo ak féewalewoo li ngeen di wut doo leen ko am kon wala tanaaza'u wala tabaagadu wa fi lasi yunmil huda taahadu kon nag nii mu ko waxee ginnaaw ay carnet dafay nekk ñu naan rosi bii at mii lii moo jóge ba saamu sëñ baara xuruja lii moo jóge béréb sangam lii moo jóge béréb sangam noonu ñi féete woo kër mag yi mag daal nan fexe ba bu nu kenn ëpp noonu noonu it nan fexe ba bu ëllëgee bu ñuy dajewaat ñu ne saam ci boppam de kenn ëppalewu leen te mën naa nekk ndax benn ñi fi nekk seeni xol nangu na ko déggal nañ seeni kilifa ndax ñu nu yàlla booleel ñu suni kilifa mosuñu noo woo ci lu njariñul adduna kese nekk luñ ñu masa woo adduna ak alaxira lay doon penc mii moom kenn wóote fi ngir boo ñibbee di rëccu kun fi woo boo ñibbee yëg ca yàlla bu baax kon nag nañ ci góor góorlu bu baax a baax. waaw waaw waaw Touba ca kanam ci délégation bu am solo bii ñu fi indi ñu gën cee xam Serigne Cheikh Mbacke Omar. di sama doomi bàjjan ak sëriñ Cheikhouna Mbacké ak mboolem ñi ñu àndal ak sëñ Baara Xelkom ak ñi ñu àndal ñëpp man nag daanaka mënoon na maa bañ jël kàddu ndax ginnaaw ñi ma seqal liggéey bi wax dëgg kenn ku ci ne jël nga kàddu te leeral nga li nga war a leeral lépp xanaa fekkee muccul rek ndax boo xoolee ñeenti quartier moo ne ci Sàmm fi Sàmm Locar mi daaneele léegi foofu mooy quartier Masalikul Jinaan sëñ Saam kan fee mu nekkit mooy quartier Sindiidi Lat Sall mi nga xam ne moo doon wax léegi moo nekk ci quartier Wakana Akhan Alayna Nasrul Muminina mbay mbay géey mii moo nekk ci quartier Muxaddamatul Amda kon nag ñoo ngi euh, gërëm mboolem population sam bépp ndax lépp luñ fi mas a woote rek mobilisé wu nañ ànd ak nun ca la rawatina lii nga xam ne nag tey liggéey yëpp moom liggéeyal sëñ Touba rek ci la nga leen mën a woo ñu wuy si la ci liggéey bu ñu leen mas a woo ci penc mii mu jëm ci sëriñ Touba ànd nañ ca ak sëriñ bi kem kattan ci génn seenu ñaq ak génn seeni poos muy ñuqi ak ñaq kon noo ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo gën mën a dëgëral nit yàlla na yàlla dëgëral ñëpp te dimbale ñëpp ndax suñ soxna yu tedd yi itam wax dëgg yàlla lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bi itam ñoo ci man loolu moom sama baat ca kaw laa koy wax buñ dee sëkk jumaa ji ñoo ci man buñ dee laaj lu mu mën a doon ñu koy laaj wala ñuy dem ca tool yi ñoo ci man kon yàlla na yàlla dimbale ñëpp gërëm ñëpp suturaal ñëpp maa ngi sant bu baax daal délégation bi ak ñi nga xam ne ñoom lañu àndal fas yéene nag wax ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nañ gën a jaayante ci lii te xam ne kat defal sa bopp dong la yàlla na boo ko defalee benn mu fay la fukk man jaa bil assanati fala ol asru am saaliha wa man jaa bi sayyiati fala ji yujzi ila misliha kon lépp loo xam ne dañ koy def nañ koy def ngir yàlla ndax wa ma tafalo min xayrin fa inna laa bi alim lépp lu ay def rek yàlla gis na ko kon yàlla na yàlla gattu gàttandu te suturaal nu te dimbali nu ba lii nga xam ne jotaay bii ñu def lépp loo xam ne war na fi ci suñ diggante ak ñu ñu ko seqal ñu am ci ngañaay loo xam ne kawe na suñ jot asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu man sama koñ bëri na ñu fay jaay ay russi waaye bëri na ci ñooñ daa am fu ñu dem di ko fa jëlee mu mel ni fii man maa daa ñëw ci soxna Bali jël si fi ay russi ah di ci jox ku mel ni soxna Awa njaay am na ñeneen ñu fay jaay ku ñuy wax soxna Maguette Seck barki démb ñëw na ci sama kër ba ma leeral ko niñ bëggee loola it laa bëgg ñun ñëpp ñu bokk ci dëgërluwaat ku mel ni soxna Fatou Diop soxna si fay ak ñoom ñëpp nañ déglu wax ji te dégg ko bokk dëkkandoo yi nga xam ne ñu ñu ñooy dugg ci ñoom di leen laaj liggéey bi itam nañ xam ne liggéey bi peesum tan la lu waaye dagg ci sa gémmiñ ci sa biir la dem kon nañ ci doolee góorgóorluwaat xam ne kenn mënu leen ci ci ci ci liggéeyal sëñ Tuubaa maa ngi leen di soññan nag muy góor muy mag muy ndaw sëriñ bi daal bu ñu ci kenn man fii man ci sama wàllu bopp euh, Abdoulaye Sall ak Sam Kane ñoo fi daa jël ak soxna Joor Jaw di ko tas ci biir dëkk bi léegi li nga xamee ni verse naa ko fi man rek verse naa fi cinq cent mille saam kan ay rosiyam verse jox na ma bi ma ko calculer sept cent cinquante mille ak euh, carnet yi nga xamee ni moom la ñu yore soxna Joor Jaw laa teewluwut lu mu verse waaye ñoo ñëpp yàgg nañoo verse waaye euh, ànd bi nga xamee ni moom laa bëgg ñu ànd ko bu ñu ko defee mu doon wenn tur di kenn di jël di jox ñi nga xamee ni ñoo fiy jaay. li Sëñ Saaliw ne yoonu murit du yoonu dem leen ma ñëw ñëw leen nu dem la moom wane na ko kon nag nee na képp koo xam ne sëñ Tuubaa moo la tax a ñëw ci dëkk bii mi ngi lay soñ ci liggéey sëñ Tuubaa bii. nee na lépp lu sëñ Abiibu bu nekk daa war bu geesoo gis ko ndax sëñ Tuubaa du nga lay jëfal sëñ Seex ñoom ñii fi teew lépp lu nekk dañoo war buñ geesoo gis leen. nee nag bis ne tey doom ak seet ak taalibe doon ak rak mi ngi lay soon ci biir liggéey sëñ Tuubaa bii te xam ne jëfalun kenn sëñ Tuubaa la jëfal jigéen ñi rek jërë ngeen jëf am ngeen ndam ba pare kon nag ca kanam rek jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah pàkk bii nag day pàkk boo xam ne bii lu ñu leen séentoo ci ak njàmbaar rek jombu leen ndax borom barab bi muy boroom saam dama cee xam lu bari luñ mën a wax ak lu luñ mënta wax loo xam ne ni Cheikh Abdou Lahad laa ko jëlee dañoo mës a toog ak guddi ñuy waxtaan ci borom saam moom daawul wax sëñ borom saam sëñ morom soxna jaare la daan wax ñuy waxtaan ba mu yàgg mu laaj ma ne ma ndax xam nga ci lu bari man ne ko ah ba ma ko waxee de xam naa ma xam ko ci waaye mu ne ma amoon na néeg bu mag de ca Mbàkke xewar bu yaatoo yaatu ma ne ko waa nii baa nga fa ba tey suñ Cheikh Bara defaraat na ko mu ne ma nee boobee day fekk naa ko fa ba may dali jàng suñ Tuubaa jële ma njaareem ne nañ ko yóbbu ci suñ Moor Jaara baayam mu ñaanal ko mu soog a dem tubaat ci suñ am satu jaxate ma ne ah, mu ne ma nee boobee day bi suñ Tuubaa jógee ci géej gi fekk na ko fa ñuy nammante mu ne waaye li ci gën a yéeme mooy li ko sëñ bi namm namm sëñ moor di ko namm namm teewut ñaar rakkaam yooyu mu doon naafile teewut def na ko sëñ bi tëdd ci njowaan gi ci néeg bi ne ma diggante sëñ moor ak sëriñ tubaa kurut sëñ tubaa xamoo ko wala sëñ moor wala suñ borom te fonkeel akuk jàpp akuk safoo moo tax dëkk bi ku fi nekk sa njàmbaar moom daanaka day force ndax sëñ Bara Khourédia mi nga xam ne moo moo nekkoon fii mm-hmm. lu mu def ci yoonu murit ci Seex Mustafaa ak nu ko jàppe woon ak nu ñu ko doy woon ba ci sëñ Fallu mi nga xam ne ci la ci jamono la fi wàccub liggéey yaakaar nag kenn mënu ko woon ci ci liggéeyu Tuubaa ba ak jumaa ji suñu Seex Bara fi nekkoon it xam naa lu bari ci moom ci digg ma seeb laat lu mu ko daan def loo ba néeg sax baara xuré ji boobee ñuy wax néegub siñ seex man mi nekkoon ak seeb laat jamono ya ma fay nekk man laa wax ba ne ma fay jógee mosuma gis sëñ bi fanaan ci benn néeg bu dul néeg boobu li ma ànd moom fanaan lépp ci néeg boobu lañ ko defee muy néeg bu ko te loolu moom ñu ko fekkoon ñëpp xam nañ ko kon siñ seex am na ci seeb laat cër boo xam ne bi am ko ci yoonu murid moo tax liggéey bii bu ñëwee fii yaakaar juñ ci am rek danañ ci gis lu ko lu raw suñ jot soxna Bali mii mi moom itam wooteem bi war na ci sant yàlla mhm. li li mu wax ne fii moo tax mu dugg ci liggéey bi muy daa bëgg a sañ sëñ bi faw yéeneem jooje feeñ na ci liggéey bi ndax nit ñi wuy si nañ ko mhm. te buñ ko wóoluwutoon doyloo wuñ ko duñ ko wuy see nii mhm. suñ seex engagement yi mu jël yàlla na ko ci yàlla jàppale ndax nun xam nañ ko xam nañ ne Pastef rek lay doxe lu ko ñorul bi ci dugg lu mu xas dugg dugg na jë ñëpp ngi koy rafetlu ndax lu yaatu la tey boole bokk yi tey rafetal te itam loolu rek lañ ko xam kon nag lépp loo xam ne ma nga cay yëngu ku ko xam ko ne xam ne lépp lu jëm ci doye di suñu borom bindu ko ci ku ra mën a rafetal la kon nag yàlla na suñu borom boole dimbale nu ànd kook moom ci barkeb sëñ Tuubaa fii nag barab la boo xam ne bii moom wax dëgg lañ fi doon rekk la fi doon kon nag moom bu ñu fi nekkul ngeen nekk fit woote gi day mel ni daanaka moom mel moom ñàkk yam kon sant nañu yàlla bu baax waaye nag bu fekkee ne da ngaa séen ñoo xam ne lañ nekk ca nga waroon di xëy war cay gont ñu ne fi barab soo accès war nga faa àgg loolu rek mooy tànk yi jërë ngeen jëf jëlilaayi maskanitu baabaat misras mi abi jaayi xayri man abaat